juge ay nit lañ dofuñu man dama gëm ne suba li nit ñuy foog di ko tiit candidature Ousmane Sonko dama jàpp ne juge ñemewu ko invalidé d'autant plus que amoo fooy ge Amadou Ba jaar parce que sa jur sa propre jurisprudence muy instant sancré kooku sax amul woon quittance bi Sonko am lépp leer xam nga tey amul benn juge bu mën a invalider Sonko pare man koo teg ci cëslaay te ñun faaw ñu jox ñu luy wane ne da ngaa raje Sonko da nga koo invalider pour nit ñi mën ko attaquer léegi loolu lan nga koy motiver lan hmm. laay wax. man nag jàpp naa ne pression mi ngi jóge fii comme fële ñun tamit waruñoo taxaw di layaam layaam yi mais comme danga ubbi panel bi pour ñu pour ñuy waxtaan sotantaa dañ ko wax. man boo euh, stratégie kenn du ko wax ci mm. rajo parce que man y a des choses yu ma laal fii sax bëgguma ko woon a laal mais faaw ma ma ma ma ma dem jusqu'au bu mais stratégie du lu ñuy wax. parce que canaux yi yi mag ñi daan yore te amuñu woon téléphone amuñu woon dara dañuy jàllale seen message dama lay jox benn parti comme pire xoolal su ñuy dajale mbooloo doo gis affiche doo gis gars yi di propagande ci seeni whatsapp doo gis te pourtant ñu dajalee mbooloo bariwuñ mbooloo nag wax dëgg yàlla am mais li leen yàlla jox saa yiñ bëggee mu daje day daje stratégie boobu ñu doxal faw ñun tamit ñu jéem a adopté le même y a des yoo xam ne du looy taxaw di ko divulguer kenn ku nekk di wax ne nii laa nii nangam nangam affaire yooyu man nga nag taxaw xëbal pour def pression mais bu fekkee stratégie rek la. non du lu ñuy wax ci kaw nag maa ngi tuub. macha allah saa am na solo kàddu yi rafet na ndey ziar bu wér ata ñëwal. maa ngi leen di ziar bu baax di ziar. mami salaam kàddu am na solo saa ak mm. uh, pël macha allah. Mm. Mm. comme fii mami salaam am na yaram wetang mais nekkul ne wàññi température mami salaam. xam nga yéen yéen a gañe combat bi rawat na yéen waa diaspora bi maam yéen kenn wurtu sax xas sénégalais yi wala fa yàlla muy yéen rawat na yéen macha allah ndax lépp yéen la ba ci parrainage bi mm-hmm. ginnaaw yàlla bu jamaay fay jàllee yàlla yéen la yéen sabab bi mbir nag mënoo ciy nekk di xeex di xeex ba mu des ay fan nga koy yàq ci ay wax bu leen nangu loolu man musuma leen a ñàkk a musuma leen a ñàkk jox bopp man mm-hmm. toujours maa leen di jot leen bàyyi xel rawat na waa diaspora bi mais nag am na yenn kàddu boo leen ko yëkkati rek day mel ni yéen ni ngeen def sa ngeen yàq xam nga tey jii seen bi ngeen jox Sonko dafa bari xëy na xaalis bi jox Sonko dafa bari kon ay wax bu leen ko yàqal benn li ngeen wax nag ci Sénégal yi dëgg na Sénégal yi naa fekk na ñu mel ne yàlla mais nag nan xool Sénégalais yi dee ci combat bi nan xool Sénégalais yi yàqule ci combat bi yi ñu tëj mais yéen yéen ñi nga xamante yéen nekk foofu tey pël bi Sonko mami salaam ñaata temps nga jël jox ko Sonko temps mu gën a seer xaalis ndax temps bii nii nga jox Sonko tey Sonko mënu ko kon nañu bàyyi xel maanaam buñu topp suñu xol di wax wax joomante ni day mujj di kii ndax yéen lépp yéen la tey parrainage ginnaaw yàlla tey tey Bassirou Diomaye bu jàllee yéen la yéen na ko jàllale tey ji tamit waa Pastef gis nga gis nga pël pël lii lépp ñun waxoon nañ ko waa Pastef waxoon nañ ko avant muy am gis nga ab ab dëkk dëgg-dëgg buy xeex maanaam day fekk opposition bi ñëpp mànkoo maam ñëpp àndandoo nekk benn jamono bi Pastef di xeex ànd na waa kër Bougane Gueye Dany jamono bi Pastef di xeex ànd na waa kër Abdourahmane Diouf jamono Pastef di xeex ànd nañ ñenn ñi nekkoon fii di mbab mbab bi di wax kenn génnut gis nga soo waa xeex bi ne woo yàgg naa taxaw fii sa panel ni la ni la pël Sénégal yi xeexuñu. waaw waaw waaw léegi atta suba lan moo war a nekk suñu taxawaay li war nekk suñu taxawaay moo di taxaw mm. temm comme ni nga ko doon defee ci ati jàll yëpp wala ci weeri jàll yëpp ñu taxaw am fulla ak fayda ni Sonko day jàll. loolu nag comme ni nga koy waxee maanaam ñu déggoo suudewu ma bay moytu tamit divertissement am na ci ñu bëree bari ñu nekk ci ñun dañoo euh, sàngoo deru bukki waaye gëmuñu Ousmane Sonko bëgguñu ko dañu yàqal nañu mm-hmm. moytu loolu wan nag yéen waa rawat na yéen waa yéen waa diaspora bi tey lépp yéen la man yàgg naa ko wax ni leen tey jii mm-hmm. yéen a yee Sénégalais yi bëree bëri ñu nelaw yéen a mm-hmm. li ngeen dugal ci wàllu économie Sénégal kenn dugal ay milliards ngeen fi dugal est-ce leer na kon nag ay wax bu leen ko yàq li lii suba nag moo di comme li ngeen wax nii maanaam ñu teg pression pression état bi Euh, pour ñu ñu ndax tey Sonko li ko dal lépp du benn ju juge ndax tey ba ci waa ji doon wax le MSM e, e, xam nan waa SMS li mu wax lépp wax leeral na ko ju duñ ci ñëwaat Sonko wàllum juridiquement mënuñu ko téye suñ ko téye politique politiquement lañ koy téye mais du juridique politiquement nag moo di ñun ñu man koo nekk benn nekk benn say bu aajee sax euh, yëngalaat dëkk dëkk bi ñetti fan wala ñaari fan sax ñu def ko. Mm-hmm, mm-hmm. waa kese loolu kese waa ñaari fan wala ñetti fan ñu yëngal ba dëkk bi yënguwaat. ñoo xam ni kat même sax bu ñu limi xam ne waa waa kër Pastef kat war nañ seen bopp mais nag toog di laayam laayamee ak di di moom loolu moom yaakaar naa ni moom mooy yombalal Macky Sall mbir mi fekk ni dañoo gagné combat bi yaa wan ko gagné su Macky Sall kenn ayu ko troisième mandat lu dul lu dul Mami Salaam lu dul SMS lu dul Pal bu Sonko ak yeneen euh, yeneen autres euh, patriotes ñoo ko aaye mm-hmm. wax na ko si biir ndax man mu ni conséquence man na ko waa defuma ko te te bu aw ko dat koy dat koy officiel ñun ñoo xeex teg ko Mhm. attention réseau bi dem na combat bi continuer mm-hmm. xeex bi. Mm-hmm. waaw man yaakaar naa daa ko doon woo moo tax ay amoon. Mm-hmm. ñu ko ñu continuer eh, combat bi loolu mooy wax ji ñu moytu wax ju ñaaw ji xam ni tey jii li li li métti li romboon moo gën a metti fopp. te tey ji yéen a ko maintenir di ko tenir di ko tenir ba si ndax tey ji bu état bi bu seen i pexe juboon kon heure bi beneen kànd la ñu wax waaye du ñu dem. Mhm. macha allah taba am na am na mhm. naa bokk yaakaar naa loolu seen. ok jërëjëf Atta ñu ngi lay jaar yëpp mhm. ñi bu xaw xaw wax xam naa nag bëggee la ñuy wax ndax seen xol moo sedd moo kii rek moo fees mais nan ko maintenir barke Serigne Touba ak affaire bi jeex na barke waaw loolu laa doy wax maa ngi tudd baax ci kàddu yi ma yëkkati. xëy mooy comme dëkk boo xam ne dañuy rey ay xale kenn du wax man munuma dund loolu man parce que damay wax ne damay liggéey ci ay yërëm ma damay liggéey ci yërëm parce que damay liggéey ci ay handicap dama war a yërëm su ma gisee ku dul yërëm dafa may feebar man noonu lay dundee kuy yërëm soo gisee ay xale di dee yërëmuñu leen kenn waxu ci sax xam nga kenn waxu ci mm-hmm. foofu laay waxee jërëjëf nuyu naa la frère di la merci maama mi kàddu yi na solo yu déglu imaam imaam ñu ngi lay ziar. Mm. wala imaam nekku fi yéen a dégg. ñu lay dégg kay. waaw xam naa fët coupé micro imaam ñu lay ziar. nga jox SMS nga jox na dafa déplacé wala micro moo hmm. hmm. bu baax mais defe naa fi laa fekk fi laa fekk SMS. SMS SMS ah, non ah, d'accord waaw bon maa leen di ziar ñëpp di leen ñaanal jàmm ñu ci kaw SMS soxna mami. le grand Akhenaton ak yow borom kër gi pël ak patriote yëpp ñu ñuy déglu di rafetlu nag sa panel bi quoi parce que parce que dafa dafa pluriel waaw euh, ci nan mooy euh, dafa dajale ay ay ay ay xalaat yu xaw woro lu jàpp ni sax laay wax yu jàpp ni dafa waroo ci patriote yi te loolu dama ko yàgg wax patriote yi bu ñu amee ay divergence ñu def ay panel interposé di ko wax dañu war a bokk ci benn panel yéeg waxtaane ko man loolu laa gëm te buñ ko waxtaanee calmement à toute camaraderie à toute fraternité gis naa ni dinañ ci juboo mais dafa am loo xam ne dañ ko war a fàttali lan lañ war a fàttali mooy ñun fi ñu jugee fi ñu jugee mooy dañu dugg ci politique en 2014 ànd ak président Ousmane Sonko jóg respecter les lois et règlements du pays ñu dañu bëgg jël réew mi de façon démocratique dem indi suñu projet kër askan bi jàkkaaroog ay nit yoo xamante ni dañu ni loolu du fi amee du fi amee lu tax commencé duñu duñu takkal duñu indil ay dossier judiciaire ci lañ yëkkati bon am na sax yoo xamante ni Ousmane Sonko njëkk njëkk na ko ci dundu ci ay ci ay kii mooy biñ ko rajeeg yooyu mais bi gën a metti mooy biñ demee ba yëkkati dossier Adji saar bi te lenn moo nekkoon objectif mooy lan détruire sa carrière politique kase ñu taxaw ànd ak Ousmane Sonko ni loolu du fi am taxaw temm xeex mun nga ko tuddee xeex mën nga ko tuddee résistance mun nga ko tuddee gatsa gatsa mooy lan suñuy àq ak suñu yelleef da ngeen ko war a respecté seen dossier complot bii ngeen jël pour détruire suñu carrière politique duñ ko nangu pour détruire suñu projet duñ ko nangu mhm. mais loolu ban ban patriote tey moo mën a taxaw yëkkati loxoom ni loolu àndu ci te pourtant loolooy résistance loolooy gatsa gatsa loolu mooy xeex ñu ànd ak Ousmane Sonko doon ak doon ànd ak moom doon dooleem ñu ni Ousmane Sonko day bokk ci élection yi par force du seen dossier tappale yi benn moo koy tere génn ci élection yi ba Ousmane Sonko loolu mu gëm ko ñu ñu gëm ko ñu ànd di xeex loolu mais bu ñu demee ba benn moment xeex bi xaw a soox foo ñu reconnaître ko te pourtant am nañ ay ndam mais fan nga yoo xamee ni xaw na sooxee mooy jàpp nañ Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi te loolu ñun yaakaaroon nañ ne mënul am ñun dañ doon wax Ousmane Sonko mën nga ko mën nga koo jàpp yóbbu ko këram wala fële mais nga jàpp ko dugal ko ci kaso bi benn jour ñaari jour jëm une semaine te jëndee woo ko ñun loolu dañ ko doon def suñu defet la mais pourtant Macky Sall réussir na ko mooy xeex bi mooy xeex bi sooxe na man ci noonu laay comprendre le fait que. candidature Ousmane Sonko am yeneen candidature yu nekk ci ginnaawam di ko accompagner ça ne veut pas dire que ñooñu ay candidat ay candidat lañ déedéet candidature Ousmane Sonko reste la seule candidature désignée loolu mooy lan xeex leen. Mm-hmm. pour sama candidature jàll. Mm-hmm. mais ci loolu la war a nekk. bu ñu nekkee ci leneen rek ñu ngi burle étape bi benn dafa am benn xam ne mooy première étape première étape bi lan la candidature Ousmane Sonko dafa war a jàll par A ou par B te dañ cee war a xeex ba dugg bugaat boîte vocale loolu dañ ko signé woon ak Ousmane Sonko. waaw moom moo ne sama candidature lenn moo koy jàllale moom président Ousmane Sonko lenn mooy seen taxawaay. Mm-hmm. mooy ñun patriotes yi d'abord. ak le peuple qu'on a convaincu parce que tamit damay dégg parfois ñu naan sénégalais yi man je suis contre ça tous les sénégalais ne sont avec nous y a des sénégalais qui avec Macky Sall y a des sénégalais qui ne veulent pas de Ousmane Sonko président mais ñun patriotes yi ak ñu ñu convaincre te ñun ñooy majorité dans pays mais candidature boobu ba léegi ba léegi soo xeegul mais dañu dañ ko war a xeex waaw wala déet mais boo burlee étape boobu di xool beneen étape. naan bu jàllul ak lëlee non da ngay indi problème problème bi yëpp foofu la nekk dañ toog ci état bi àndandoo booloondoo xeex pour que la candidature du président Ousmane Sonko jàll te lu tax candidature président Ousmane Sonko war a jàll tool xam nga lu tax loolu mooy garantir ñu gagné élection yi élection yi ñaar moo ko ñun dañ koy gagné wala ñoom ñu sàcc ko mhm. te lu tax ñu mën ko sàcc mooy bu président Ousmane Sonko bokkul ci lañ koy mën a sàcc léegi leer na ñëpp ñu am nañ fichier électoral bi fiabulul léegi leer na ñëpp te ñëpp xam nañ ko ni ko président Ousmane Sonko waxee di processus électoral bi yëpp Macky Sall ne na ko Sénat ay nitam a fa teg cour d'appel ña ñoo fa nekk ay nitam fépp fépp ay nitam a fa nekk mais loolu yéen wóor na ce qui veut dire fii ba élection yi di jeex taxawaay la dañu war a taxaw temm temm taxaw temb pour gagner élection yi pour génnee président Ousmane Sonko ci kaso bi def ko président pour génnee ñu nekk ci kaso bi pour lan ñi ñu rey ñu fay ñu ñu rey ñi leen fa ñi leen rey ñu topp leen yooyu yëpp yooyu yooyu yooyu ñun suñu responsabilité la mhm. buñ première étape bi rek bu ñu ci taxawee coow du am première étape bi nañ ciy taxaw rek mooy candidature Ousmane Sonko dafa war a jàll léegi nan la ñuy def nañu mobiliser pour que mu jàll bu benn waaye tëb boo tëbee ci loolu di jàll ci leneen rek billaahi indi nga problème man noon laa ko gisee ma bañ a monopoliser la parole may geneen